voilà dama jàll jàll jàll benn jàll benn vas-y Sam coupe-le ah vraiment ah vraiment vraiment. Nderi ñoo nekk vraiment ni waa li moo tax noonu bal mu ngi dribble ci milieu terrain bi xàcc na mu ngi koy jéem a dugg waaye mu ngi def jeu bi pour xool kan lay joxe mu ngi dribble mu ngi xool ba tey mu ngi yàqal jeu bi perte na bal bi waaye daw na pour jëli bal bi acteurs yi ñoo tee bal bi ñu ngi defar. carrément man la mu ngi ñu ngi ñu ngi xool ba tey jox na Wally Wally ñu essayé jeu bi xool na ci milieu bi daanu nañ ko Wally récupéré na bal bi récupéré na na waaye baaxul. dinañ ngi daw. ak ñëw ñëw ñëw waale ngay def waale ngay def avancé def na profondeur. profondeur waay. Eh, dugg na eh, dañ daa jeexal moom laa mel ni jeexal na bu yàgg. waale ngay dem ngay jéem a defar waale ngay avancé def ah, def na ci kaw bus na bal bi góor bu jàpp. ah ok. lii jox na waale waale ngay essayé mu ngi xool kan lay jox xàcc na da koy jéem a ko day defar sébi defar na ko jox na. gars yi mi taw na ñaari état nekk fi mu nii gars yi ñu waajal li nga xam ne mooy jeu bi waa lay ñu oo équipe am pour wax ak ñoom gars yi pour xool nañ def jeu bi ñu ngi wax ak Atia nee nañ ko gars yi mu taa nañ ñu ngi Atia mi taa nañ mu ngi mi taa gars yi tàmbale nañ deuxième deuxième mi-temps bi gars yi tàmbale deuxième mi-temps bi waaye nee na nañ ko nañ ko enchaîner moom daa mel ni fi mu nii daa bëgg égaliser wax taxit nee na nañ ko enchaîner. na gars yi acca génn leen damay tooñante seen biir yaa ngi nag dañoo météo moom fi mu nii mais gars yi ñoom seen équipe mu ngi nii vraiment rek ñoom ñu mën a ñaari bal ci dara mais ñee ngi defal seen équipe actuelle ah gars yaa ngi wax Ndiobo ngi wax ak équipe bi ah Ndiobo ngi wax ak équipe bi pour ñu xool jeu bi waat. Ah, pour ñu tàmbali deuxième Boga ngi noonu Boga bu Waly mi ngi noonu copain Idali match bi 2-0 yaa ngi tàmbaliwaat ñaareelu xaaj bi waalee dëgg bal bi noonu pour dóor day e ndax koro def na ko teg bal bi rek dóor aca ñaareelu xaaj bi tàmbali na ah acteur seeri téléphone bi ñoo mu ko ñaari bal ci dara ñi nga xam ne ñooy faramaare ñi match aller ba tamit ñoom ñoo gañe woon bi faramaare ñi a gañe bi temps bi nag ñoom lañ mëneegum match ndax

laser yi laser yi naar yee ko fi indi acteur série film yi indi ko fi macha allah waaye ngi jëm doon effacé fekk am na ku nekk ci ginnaaw sa waay mu ngi xool kër lay jox saa ñu ko bi waaye dina ko leen fële jaayante moom doole mu récupère ba récupère na ko mu ngay daw jinne ngay def yëfu jinne waaye saa ngi koy jaay yëfu bukki waaye mu ngi koy jaay yëfu jinne moom tamit ba tey perdul bal bi ngi jéem a def mu jéem a perdul bal bi bal bi génn corner corner nga jéem a essayé day xel ci camp yi kan lay jox baaxul gars yi récupéré nañ bal bi acteurs yi récupéré nañ bal bi ñu koy jéem a génnee Waly marqué na teg teg na ko. xawaat na bal bi génne na ko Waly jël na bal bi mu ngi avancé xel na ci mais baaxul. arbitre tiré na faute arbitre tiré na faute faute arbitre bi tiré na faute waaw ci Faramareen ni ñëw am pour cent koy dóor mu ngay essayé écran ya mu ngay jéem a pour xool day dóor wala day paas ba ci mënti am rek dañ ko seetaan doo ñun ñëpp mu ngay jéem a pour dóor parce que mu ngay xool di jël élan pour jéem a dóor xam naa ne nag ci likaar nañu la ko bëgg a moo tax muy jéem a jël pour am force de frappe na dóor na dem na ci kaaya arbitre nee na boobu da ngaa laal courant bi baax na waaye dafa xaw a kaayoo ngay defar ngay defar mën na waale waaye la mu war am na ko waaye léegi xàcc na mu nekk xàcc bu nekk yàkkam baal day jëm a xàcc parce que jeu bi la gën a def mooy sant bi xàcc foot yuuxu na football xale football xale yéen xale yéen te nga yuuxu ci biti Fifty nee na ko hoo Fifty nee na ko hoo hoo Fifty nag moo yor kaaraange acteur bi ndax woykat bi bas bas Fifty yey bas Fifty yey ndax woykat bi dépense nekk ci ndondom bi daa bëri moo yor dépense formaare ni moo yey ministère yi bu koor gi jeexee dañoo war a la xoola xoola ngi essayé waaye tamit dafa def fu muus am kuuf na dóor na yi ñu ngi fa lii daw de Zé ngay daw de Zé dem am na doole am na force de frappe bu dóoree day dem acca acca Wally jox na jox na parce que on laaj Diéna Khoulé muy noonu ak mi noonu def di koy jëndee léegi noonu la jéem rek Wally plat de pied la koy jox soo xoolee ngeen bàyyi arbitre jour yenn saa moom bu sonnee rek wax arbitre acca Wally ngi essayé day door doorul jox na dafa paas profondeur la ko defal loolu la ca kaay ñoom bi da si des mooy dugal dañuy dem ba ca kaay waaye duñ mën a dugal parce que bi orbite gis na ko bu yàgg joxe na ko waaw waalee ngi defaraat jeu bi da ca luus na ko oh bal bi génn na da doon jéem a dem dafa contrôlé na mais dafa ëpp doole bal bee ko ëpp doole mu dem parce que bal bi dafa gaaw mais nag coono yaa ngi feeñ ci kanamu gars yi gaa yaa ngi nooyi di téye ndëgg mais jox na balam jox na ko Waly bi bu nga na ba jël balam waaye daanu na waaye amul problème football la foofu góor na pis na bal bi dañ ko Fall daal nangul ñuy gaañ Nourou saa ñu gaañee Nourou dafay tëral fóot donte bokkul ci ñoom ñaar waaw. waaw. jërëjëf Khoule jërëjëf Khoule. Dakar. non Dakar live Dakar midi ñu ngi noonu toute la presse est là voilà ñoom dañuy reetaan rek ndeysaan ñoom. ah dinañ la reer rek ku nekk yow dina reer. ñoo leen andi ay problème waaye nee leen bu leen yàq match bi bàyyi ñu door suñu penalty yi ñoom lañ mënee dum ñett bal ci benn biir César nga ne taxaw nee leen bu leen yàq match bi waaw arbitre bi penalty retiré coow la bëri acteur yi di bañ di siisu acteur yaa ngi siisu kaño fuul kaño e jogu me e jogu me e jog e jog te ga yaa ngi ko jog gaa yi nañu bàyyi ñu joué gaa yaa ngi ci mais rek dañu génn nañ ba Fra TV d' accord nañ daal di waxtaan bu dugub kenn dañu bañ a Gel, gel, gel. mais naa la xamal dara de góol bi rek mun góol góol bi attention xamaa ni am nañ penalty bi kan moo koy dóor xamaa ni waa ne koy jël le tireur Wally mooy jël penalty bi waaw waaw jël na bal bi waaye moom dafa mel ni daf ne bu fekkee penalty amul mën ngeen dem ñu jouer ko parce que lépp jàpp na ko waaye daf ko jox jox na ko waaye mooy dóor moom lañ ko tegal moom lañ ko tegal dim la rek dim la Vamos lá! waale koy dóor wala kuñ teg la seet la koy dóor système la waalee dóor système la waali mooy dóor système la laser yi moo tax def loolu système la te ba ñu teg ko laser moo tax la sa waaye koy dóor mais waale koy dóor day gàtt ba lu muy dóor waale koy dóor système la waale koy dóor système la laser bi moo tax ñu def lii système la waali mooy dóor ba système la Sanglar moom moo koy dóor day bañ a tëkkalateer waaye li ko bàyyi. waaye li dóoru ko dafa bàyyi Sanglar moom la. dëgg nga dóor ak Serigne Touba dugal na dugal na ko léegi nag 3-2 3-2 fu mu nii ah 3-2 3-2. match bi daa mel ni match bi lay mujjee waaye waaye korog nii la woon te mujjeewul match bi ba tey lu ne mën na xew waaw nag ñoom ñoom ñoo mën a bi gars yi fekk ñu leen ñoom dinañ def comme korog gars yi nañ def parce que ñoom lañ mën a a woon ñu fekk ji fekk si leen taxaw ngi koy mu ngi koy yuuxu pour jox ko sàcc joxe da ko génn peut-être da koy sëmbaxal ci kaw comme machine bi ci la bëreetul day a sëmbaxal pour def égalisation waaw waalee tee balam waalee ngi noonu di jéem a dóor mu ngay dóor mu dem ci kaw waalee nga dóor sëmbaxal na ko ca kaw li ma leen wax ma def essayé ko wa amul kenn ku bëgg bal bi génn bal bi génn personne jël rek ku ne mën a teel wax naa leen ko léegi nee naa leen donc deuxième mi-temps 3 heures la ma gars yi dugal 2. bii noonu ñu ngi essayé ñu ngi daanu tubéy bi la day lëndu waaw bi moom arbitre bi moom yaa ngi koy yaa ngi koy suñu acca acca seen patron moo teebal la amul compass doon na ko ci kaw joori waaye ni a essayé e. e. hm? na bal bi pour kaw suba xalaat na parce que ñu ngi waaye amul kenn ko fa ngay ñu ngay essayé ñu ngay essayé jox nañ Yérim ngay xool waale jox na waale bal bi na waale waale na ko kawaat joxaat la pour rek ñu mën a dem. acca Cheikh def na Cheikh Sigil Sigil dafa bëri bëri Cheikh moom bëgg Cheikh moom bëgg Cheikh xanaa teguñ ko tey ndaw moom. ko Cheikh day kàjj rek Cheikh day kàjj rek Cheikh xanaa rek. waaye ñun tax ñuy sotti ah sotti a ah, bokk ak yoonu liggéey. waaw waaw loolu gisee. loolu am na loolu am na. waaye ñun yenn saa ñu dem concert yi. fu ne fu ne liggéey chaque jour ñu ngi ànd ak artiste woykat bi. acca daanu na daanu na wuyaay. waaye gars yaa ngi jëm day na. seen yaa si biir temps na ko ci. acca gars yi jël nañ ñu ngay daw ñu ngay daw. Serifa ngay daw. oh perte bi ma ngay daw. gaa yaa ngi acca jox na waali Yérim jox na waali gis na ko jox waali waali contrôlé na sigg na xàcc na defaat na beneen si kaw waaye gaa yaa ngi bëre ñu ngay bëre ñu ngay bëre ñu ngay bëre acca muuroo ngay defar muuroo ngay defar muuru muuru fexul ba tey de muuru fexul ba am bàmmee taakale na ko poom poom góor la taakale na ko ba mu ba mu rul ne nee na ko ak def ko barke yàlla chef bi ah chef bi ah. mais daal sibiri bi gars yi yéen mu ngi noonu. nga ne ko laal na sibiri bi. wóor na da ngaa mën a jógal. xamee ngeen kii kii mooy Italie. comme comme bat la. perte bal bi. gars yi gagné nañ acteur seen kub yi gagné waat nañ gars yi gagné waat nañ acteur yi gagné waat nañ mais. waa léegi dafa fair play gars yi acteur yi gagné waat nañ ko géré. oui mais li xew benn télé. acteur yi dooraat bas Idaly mu ne ko Idaaly match bi jeex na match bi jeex na. Ndiol. match bi donte match bi jeex na mais artiste bi dañ leen di wax xaar sax xaar ma def nii sax moo gën a